salaamaaleykum téléspectateur ak téléspectatrices yeeg de TV daal leen ak jàmm seen xibaaru ngoon di ko tàmbalee di wax rek ne Sénégal fii euh, ressources minières yi gannaaw bi mu fi feeñee lu mel ni euh, pétrole ak gaz li ñu si gis rek jàngat gi ñu siy def rek moom mooy fu mu toll nii. ñii di euh, kuje politique bi dañoo war a booloo nekk benn xoolandoo euh, benn bërëb euh, rawatina ñaareelu mbir mi nag gis nañu ni fu mu toll ni lii di acteurs yi ñëpp ñu yëngu ci wàllu développement nag war nañ leen mboole ci mbir mi ci waxtaan yi li ni mel ku ko fësal moom mooy kii di économiste bi di yokk si ni fu mu toll nii gis na ni Sénégal tegu na ci yoon bu baax ngir ay leexal ñu teewlu si reportage Abdoulaye Timéra ak Ousmane Diallo. ngir ar Sénégal. ci li nga xamantene bi mom modi di. bi bayeko ci pétrole ak lepp lu nga xamantene ne meññeenteef la. muy jóge ci souf ci faaw ñu daldi euh, di wala sax ñu daldi saxal jàmm. Euh, lu ni mel nak ki nga xamantene mom xam-xamam ci walu économie di euh, Abdoulaye Seck moko daldi xamal rawatina ñi nga xamantene ñoo ñoo ngank politique bi ak njiti ñu daldi di actuellement c'est des questions qui doivent transcender les clivages politiques c'est des questions qui doivent transcender. dañoo war a weesu ay xaajaloo ndax fu ñu jëm nii faw réew mi ñëpp nekk benn muy ñi nekk ci kujje politique bi rawatina ci ñi yor nguur gi ndax li yëfu ñëpp la lu ko mooy ay musiba rek lay jur te bu ñu fàttee ne alal bi nekk fii ñii di ñëw ëllëg ñoo ko moom. dañu reconnaître altruiste nous devons accepter de travailler pour ces générations-là. gannaaw bu ñu ko ay meññeenteef ci Sénégal ni ki de nag réew dafa melni rek ab jéeg bu rafet bi nga xamanténé bi ku nekk bëgg na ko labat. dëgg la ndax fu mëni

àddina bi yëpp teg seen bët Sénégal kon moo waral nag fi mu Sénégal ku nekk euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy investisseurs yi ku nekk bu gën a ñëw ngir mën a am wàllam ci li nga xamante ne bii. lii di classe politique bu Sénégal ak société civile bi faw ñu déggoo ngir jàmmi réew mi. lu ko mooy Sénégal du mucc ci li nga xamante ne bi moom moo di njombe bi nga xamante ne bi nemmeeku nañ ko ci lépp lu nga xamante ne dafay bàyyee ko ci meññeentef yi nekk si suuf si te ñu gis yenn réew Afrique yi nga xamante ne bi daanaka suux nañu ci lu ni mel ñiy laaj rek ñu teylu ak ñu dem ak dem peinture wala bind si mur yi nekk na lu xew loolu fii ci Sénégal ndax euh, saa yu ñu yeewoo ci dakaar capital bi mur boo dem rek gis ay dessin wala ay message yi nga xamante ne ñii di yi dañ ko fay faral di def mu nekk mbir bi nga xamante ne ñoom dañuy faral di wane seen xarañte waaye tam seen esprit créatif ak itam lépp li nga xamante ne moom moo nekk seen biir ñu koy génnee à travers message yooyu wala ay dessin yooyu muy ay message wala ay nataal yi nga xamante ci bëri day interpeller ñi di euh, sénégalais askan wi ci seen nekkin walla seen wala walla tam euh, sensibilisé leen ci fànn yu bëree bëri ngir ay leexal ñu teewlu ci reportage Khadijatou Fall ak Ousmane Diallo. li di métier graphisme nekk beneen façon yónnee bataaxal soo doxantoo Dakar ci ruq-ruq bu nekk. ñii di ay ndaw def nañ fa seen liggéey di fa yónnee ay bataaxal. Ah? aar bi ñi ko xam bëriwul wante waa ji moom mu ngi ci faj ay soxlaam waaw ça paie waaw pour dire vrai ça paie parce que am na foo xam ne boo ko yëgatee benn niveau bi c'est normal effort yi nga si jot a def mu jur dara parce que léegi dañuy dugg ci beneen cadre professionnel boo xam ne euh, dañ lay woo sur des marchés et tout da ngay da ngay da ngay da ngay représenter des fois sax ay produits sa liggéey dañ koy yëkkati beneen niveau boo xam ne ça l'aspect décoratif et qui dit décoration dit marché en fait donc liguey le à part entière comme yenen liguey en fait. mook daanub doole yëpp a yem graffeur yi ñoom yenn saa dañuy jànkonteel ak ay jafe-jafe ci seen wàllub liggéey. sax yu bëri combat yi ñuy défendre ça peut aller en l'encontre de l'État ou peut-être de la politique gouvernementale. defar dara ñu saboter ko après parce que xëy na <clears throat> le message ne passe pas parce que xëy na nit ñi muy adressé ñamewuñ dëgg yooyu wala mbir yu demee noonu en fait mais bon adressé ñu directement parce que duñ ñu xam sax ñun ñoo ñan en fait bañi bañi mëna gis si ñu adressé ñu. xam bu baax jafe-jafe yi nekk ci seenub liggéey ak ñàkkub koppar gi ne ñii di graffeur yi ñoom ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan ngir seenub liggéey mucc ayib. vision 2020 bu CEDEAO nekk na li nga xamante ni lu am solo loola li ni mel moom moo waral acteurs yi di jàpp nag ni fu mu toll nii lii di ak yi war nañ ko consolider ndax organisation ouest africaine bi def na ay jéego yu rëy a tax na chantier yu bees yi war nañu fexe rek ba gën ko yaatal waaye tam maintenir ko ñuy rafetlu tam li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu dugg Maroc ci CEDEAO ndax seen roi bi. moom ma jël na décision bokk ci CEDEAO gannaaw bu Maroc boobee intégré Union africaine mu nekk mbir bi nga xamante ne kii di Moustapha Cissé Lo di président parlement bu CEDEAO moom àdduna jëm euh, ci fànn googu ci ab forum bi nga xamante ne amaloon nañ ko ci Grand Montana foofee ca Daxa ba muy rafetlu euh, taxawaayu Maroc ci euh, CEDEAO donc ñu teewlu ko ci micro suñu naataango yi. li jëm talal maroc ci biir cdao nekk na lu nga xamante ne bi fu mu ne ni ñu ngi koy seetlu waaye man lu ma mën a wax rek eh, moo di gannaaw njiiti réew yi seen bopp eh, wax nañ li jëm ci walu man aw ma leen li nga xamante eh, ne bi mën naa ko ci teg faw donc ñoom seen biir donc ñu dal di gisee bu ñu gisee donc lu ci ruseeni rek ñoom ci loolu dinañ xam ngir li nga xamante moom moo di a bokk ci li nga xamante ne moom moo di parlement bi ci boppam foofu mën naa ci wax ndax euh, gannaaw man maa nekk njiit foofu ñun suñu biir euh, li nga xamante ne moom moo di euh, parlement bi ñun fu mu ne nii suñu yéene ak suñu gis-gis moo di Maroc bokk ci li nga xamante ne moom moo di CEDEAO ndax loolu dina nekk lu nga xamante ne bi dinañu neex te loolu fas yéene nañ ci taxaw. xibaaru biti réew yi Cameroun Madagascar France ak Italie. foofee Cameroun journaliste anglophone bu tudd Mimi Mefo en chef adjointe di présentatrice de présentatrice télévision bu tudd Equinox yoon teg mercredi soir foofee prison bu Douala moom ñu ngi ko joxe ay information yu journaliste boobee nee nañu dafa bind publication bu mu wax que ni missionnaire américain bu tudd Charles Truman Wescos ba non aduna ci weerub octobre ci attaque séparatiste anglophone ya amone son nord-ouest bu Cameroun ñi di soldats camerounais yi ñoo boom ba taxna tek nañ yoon tek nako loxo jamono yuñ toll ni fele ci Madagascar tambalé nañ di xol bulletin de vote yi ba taxna pour bëgg lu gëna a ci bop askan wa commission électorale nationale indépendante ñom né nañu tàmbali nañu génnee li nga xamante ne mooy résultat yi foofee ca Italie comme ni ñu ko tàmm defee commission européenne yi génnee nañu tey ab prévision économique bi nga xamante ne ñoom nee nañ su fekkee baax na ci yeneen dëkk yi nekkul lu ni mel. xibaaru tàggat yaram yi di ci ànd ak Khadija. gannaaw ba mu daanee Rocky booba Serigne Dia ñu gën koo xamee ci ji dina daje ak polone bii di Bułunski fukki fan ak juróom benn ci weeru décembre 2018 fële ci stadium Marius Ndiaye. roi des arènes boobu woon dugg na ci box bi laata kii di Eumeu Sène di ko daan ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet. dafa dóor kii di Rocky Balboa ba mu kawoo ci ñaari minute juróomi fan ci weeru mai 2018 ñoom ñaar dinañu def ñaari jàkkaarloo benn bi dina doon fële ca Paris beneen bi fii lañ koy defee ci Dakar. doomu mbuur bi li dafa nar a bàyyi làmb ji wala dafa nar a boole làmb ak box loolu de dinañ ci xam dara. gannaaw ba mu demee foofu di Louisville international sénégalaise bi di Yacine jóob jàpp na bu baax ci victoire clubam bi bi ñuy jongante ak waa Kentucky. basketteuse sénégalaise bi marqué na benn point def fukki ci fukk ak juróom-ñetti simili. match bu rëy la def ci kanamu coach bi nga xam ni ci moom la yaakaar ngir mu yóbbu ci kaw équipe bi mu fekki ci atam bu mujj. Kalidou Koulibaly mën na bokk ci ñi jël ballon d'or bi ñu war a joxe juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2019 fii ci Dakar footballeur sénégalais boobu de mën naa gañe lii di ballon d'or africain ci ndax mu ngi gañe ay poñ yu bari ci jongante boobu ndax dafa def ay jéego yu am solo ci club bi di Naples moonte de daaw bokkul woon ci onze type de l'année waaye ay weer ci kanam dafa def liggéey bu am solo bu tax ñu nommé ko bu tax mu war a bokk ci bu tax ñu koy distingué comme joueur de classe mondiale Cristiano Ronaldo dugal na biwam bu njëkk ci Ligue des champions at bi joueur Real Madrid ba woon tijji na kontu biwam ci at bi ci Ligue de champion démb ci ba waaye équipe am bi di Juventus de Turin Manchester United moo ko dóor ñaari bal ci benn Real de Madrid dafa gagné club bi di Victoria juróomi bal ci dara. international sénégalais bi di Krépin Diatta moom dafa dafa génn ndax dafa am gaañu gaañu ci cuisse. ci titularisation bi njëkk ci Ligue de Champions Krépin Diatta dafa contracté benn blessure à la cuisse ginnaaw bi bi nga xamante ni mooy Brugge dooree Monaco ñeenti bal ci dara. téléspectateur ak téléspectatrice Yegle TV lii lañ leen joto a indil seen xibaaru guddi di leen gërëm ci seetaan bi di leen bàyyi programme Yegle TV.